mbokki Sénégal Tëngéej xewle na muy journée culturelle bu ren bi ñu dara jaalee ko góor yàlla gi di Serigne Ali Cissé di taalibe bu mat sëkk royukaay ñu jàpp ko samedi yem ak fukki fan ak ñeent ci weeru mars ci ndigalu Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass di xalif bu Medina bàyyi ci kilifteefu Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima ñas nekkal xalifa bi fii ci Ndakaaru groupement départemental bu Tëngéej bootu ci jamiyatu Ansari Diin ñoo am mbégte di leen yëgal bu ñuy def at mu jot ren nag ñu jàpp ko samedi yem ak fukki fan ak ñeent ci weeru mars ñu koy defee ci jardin public bu Rufisque muy terrain handball bi ñu koy darajaale rahmatullahi alayhi El Hadji Barham Kébé monsieur Amadou Samb Tamsir Ségandooy ànd defar suñu gox Adja Lalla Fall di présidente fayda bi soxna Sophie Dramé Ndeye Fatou Niass bokk na ci parrain yi groupement bu Dakar programme bi nag nii lay tëddee bu ñu demee ba ci ajjuma ji ginnaaw julik tàkkusaan dinañ def xadra ñu koy defee ca kër Seyda Rokhaya Niass ca Sanca ba wàgg ñaanal Sénégal ñaanal mboolem jullit ñi bu ñu demee ba samedi nag di fukki fan ak ñeent ci weeru mars di bésu conférence bi bu juróom-ñetti waxtu jotee dinañ jàng kaamil ñaanal Sénégal ñaanal mboolem jullit ñi bu benn waxtu jotee ñu berndeel gan ñi ñeenti waxtu nag ñu tàmbali waxtaan wi kiy def waxtaan wi di imam Cheikh Tidiane Ali Cissé imam bu Grande Mosquée bu Medina Baye tomb waxtaan wi di Serigne Ali Cissé di taalibe bu ma sëkk royukaay zikarkat yi Ibrahima Ndaw Pape Kebe Cheikh Mbow ak yeneen jàngkat kon bés bangoog ñu jàpp ko samedi yemak fukki fan ak ñeent ci weeru mars groupement départemental bu Rufisque bootu ci ansaaru din di ci woo mboolem soppee xarit yi ne ko ñépp teew